général nekkoon semga jamono jooju général Jean Alfred Diallo ginnaaw ndaje boobu mu amoon ak président Léopold Sédar sengor bind ab bataxal président Léopold Sédar Senghor le 2 juin 1968 bataaxal boobu général Jean Alfred Diallo di xelal président Léopold Sédar Senghor lan la war a def